ey na wu yaa réew kon foofu la gaa nekk di buuxante noonu. am na ñu quitté am na ñu quitté am na ñaar ñu quitté woon am na ñaar dinañu quitté kay ñoo yey quitté damaa xamul luñ fay wut bay quitté. yow tey boo nekkoon sama ex sama sama nekkoon sa ex jabar ma créé bu war dugal la ci da ngay quitté. lum fay wut. Ah, yow tamit nabu nag dama am ful la nag. ah. mais bu nekkee xarit yaa numéro c'est ton numéro mais di ma dugal ak samay ancien rival mais luñ fay wut non mel ay mbonaat non mais nag ndambu nag nekkal nit nag. ah non waaye góor ful la tamit waaye. ka ah, ka cas d'entraînement la. ah yéen a leen di ruube foofu ne leen xeex leen ci biir ku dama leen di nuyu xam nga damay mënul envoyé ku ci nekk message par jour moo tax ma créé groupe damay envoyé message groupé. mën nañoo muñ de. mën na ñaar ñu quitté. luñ mën de man mënuma ko. mais que Yulo ça te dérange. bah bah oui sincèrement parler. tu ne peux pas prendre ton cœur te donner à une autre personne moi je reste derrière en train de bokk des groupes WhatsApp ça c'est pas du respect aussi hein sincèrement parler aussi hein qu'on se dise la vérité quand même. je peux dire quand même tu as mon numéro j'ai ton numéro on s'appelle on parle ensemble ainsi de suite mais faire partie des groupes WhatsApp euh, surtout il y a que des góor là-bas. sensation góor bi di ma déranger foofu non du tout toi arrête arrête arrête arrête non non c'est très sérieux bi y a que des góor c'est toi seul qui est jigéen là-bas y a que des góor ah. bokk ci ma ne groupe boobu yàlla ma yàlla musal ci boobu lu may doyee groupe boobu. ah góor ful la waaye. jamais jamais jamais je ne suis pas dedans. sincèrement parlé parce que yow comme en Europe d'ouverture mais yow amoo d'ouverture ah? non loolu yàlla bu ma d'ouverture boobu. on est marié on est divorcé je peux avoir ton numéro on garde contact ba yàlla defaat lu muy mais boole ma si ay góoru WhatsApp avec tes anciens non non non non non non non non ça ay ay ay kuy du ñu bokk ah. mais je suis votre femme j'ai été votre épouse à vous toutes c'est mon devoir de vous regrouper. benn espace sain chaque matin ñuy waxtaan may xool ci loo leen nekk des fois mu dugal ko. Ah, ah, ah, di nga gis suba nag ñooñu seen jabar yi te seen téléphone yi ne kii te leen bi naa bubul yëngal aaxas ah baax na di nga gis ku si nekk naan ma xool sa téléphone na bu nee na da ngeen bokk góorub. attends groupe dama leen yónnee ay photo dama leen yónnee ay photo yu rafet ay vidéo groupe dafa nekk groupe <laughs> baax maa ngi xaar ba ñu dégg suba rek am na ku fay parce que loolu dafa jar a fay. man sama jigéen bi kamit bu toogee ba jëkkëram di dem di bokk ci ay groupe loolu du respect lu muy dox ci groupe. man franchement ku fay da ñaax fay parce que man sëyuma sëyaanuma aw ma xolu muñ muñu muñaanuma. moo tax nag moo tax nag ñu war a am fulla wuti leneen gëm yàlla. kan mooy wuti leneen. ñoom ñëpp na ku dem gëm yàlla xam na ne chance la woon jaar nañu jeex na le passé c'est le passé mën ngeen gaax dalay contact di nuyonte di respect bu ngeen dajee bu événement amee bu ñu amee tàngalmant ñoo jox la ñoom bu ñu xewle nga jox leen fekk du xeex du xuloo mais di toppaat si ginnaaw di mel ni yambax boobu non sa je suis pas ça sincèrement. est que ñoo xali xool nag bu bëgg. Ah, waaw waaw de am de yow de moom ku Après, quand tu n'es plus dans sa vie, il commence à comprendre l'impact que tu avais dans sa vie. il faut moo tax man gis nga sama ex jëkkër yi ku ma ci woo wala ku ma ci envoyé message d'amour du ma la du la du ma la du ma tuutal du ma la dàq parce que xaw ma sa degré mbëggeel fu mu toll ci man te bëgguma ko gaañ aussi tu mais man xam naa ni balaa ngay gën a bëgg sa jabar mu sori la balaa nga koy gën a bëgg ngeen nekkatul nga si ngay gën xam. loolu loolu loolu moom am na moom. ñun ñun góor yi ñun góor yi rek kilo bi ay ay ay ay ay quinze mille vingt mille lay jar. ay trente moom si góor la nekk góor góor xaaral ma wax la foofu xaaral ma may la foofu mbuudi di la gatandu nabu si xeeñu saw dëgg nag set ak mën góor ak a bëgg jigéen ju set ak lekk gu neex ak jigéen ju ju ju ju ju immature kafoore ambiance góor ñi dañ ko bëgg de. waaw dama ni li nga wax dégg naa ko góor day am lu ne baax ci wetam bàyyi ko foofu wuti ji keccax ci àll bi. ba lu baax ah. romb ko. après ah. muy dof doflu loolu moom si góor la ah. nekk moom. loolu moom xaw ma lu tax yàlla moo ñaale ko ñun góor. nabu loolu góor yëpp la ko yàlla moo ñaale. góor day yor gaynde ci biir kër ga góor wuti ji muus ci biti. muus ba di ko këll këlluloo di ko sonal sonalloo te gaynde ca kër ga du ko du ko du ko wan les griffes gaynde ba ca kër ga du ko wane ne ka man gaynde laa du mm-hmm. loolu moom problème mu góor la moom sincèrement parler góor yëpp noonu la ñu mel nag bu dee bëgg nga dégg-dëgg mm-hmm. ñu bëri nag dañuy toog naan non sama jëkkër melul noonu waaw parce que sa jëkkër du dem difale si muus bi mu koy karaate muy ñëw si yow naan muus bi dalaa de mu may da lay mës a nëbb muus mi. góor yëpp góor ñi seen faiblesse yow góor nga mën nga ma ko mën mën nga ko mën mën ma dëggal ci loolu góor moo bëgg jigéen bu am caractère góor ci boppam moo am bëgg jigéen bu am caractère moo bëgg jigéen bu koy jigéen bu metti boo baaxee ba mu ëpp wala nga gentil ba mu ëpp comme ni mu ko bëggee dalay sonal passif ne nekk ci moom te dalay sonal parce que ni ma mel nii ak ni ma ni ma sauvage nii su ma gisee ñu may message at naan ma je man dama naan ñii xanaa ñii man du ñii laa jàpp saaga seen ndey fii chaque jour man ñii xaw ma dañuy yaa ngi dégg sa ba léegi. ah. yaa ngi dégg sa si gars yi ba léegi si anciens yi. message laa lay naa def ëpp naa def ey ey ey ey jàppale buy ngir yàlla ak yonent bi barke yonent yàlla Muhammad maa la ñaan bul tas kër gi maa la ko ñaan yonent bi laa la waatal ne pas ça ne monte pas s'il te plaît. Ah, billaahi boo ko wanee duma la ko baal barki yonent bi s'il te plaît non montre pas non non non non boo ko waxee gëm naa la mais na montre pas donc je sais am nga ko déggoo li yow ku la wàcc moo lay wuti man xam nga ni dama la doon ruube rek waaye nabu yow ku la sàggane ba ah tamit gars yi lu baax la ñuy bul def loolu mais dama la bëgg a expliquer moom xaw ma ñan ñoo nekkoon sa jëkkër mais wax dëgg fa yàlla bu démb doon tey xaw ma lu leen man ti boole dinañ éviter problème boobu am xaw ma nag peut-être du jóge si ñoom si yow lay jóge nag parce que man xam naa ni yow yaay divorce ñoom divorce. waaw man man man man maa am problème man man li ma la wax rek la man man maa kiiwul quoi je pense que man maa amul habitude am na ku ma envoyé message xam naa daa dégg ñu mi ngi si live bi de. nee ko dinañ <laughs> ko suturaal nee ko kër gi du tas eh nee ko Kaliphone def na si moom daa mel ne dawul loolu de. eh nee ko Kaliphone nee na nañ ci def code. nee ko dinañ ko suturaal. xam nga góor bu am fit dag may neex góor bu daw daal. <laughs> kii message ma nii man man déjà kenn du ma message à partir de une heure du matin donc forcément ku nekk ci live bi la léegi xaw ma message yi liiraguma xaw ma lu mu ci wax. dina la ne bul uh, suturaalal la lay wax na montre pas kooku kay dina ne ngir yàlla xam naa ne mu ngi lay seetaan na xaar ma wax la non uy ma waa xaar ma wax la lenn déglu ma ba xam li may wax on parie combien déglu ma li may wax ba nga xam lan laay pari dama ni xam nga message bi loo si liir s'il te plaît ngir yàlla ak yonent bul yàq sama aduna loolu di nga ko liir si message bi dama la bëgg ne bul yàq sama aduna di nga ko message bi liiral. léegi léegi su ma ko liiree. waaw. ma wéev la léegi cinquante mille. waaw. su ma ko liirul. waaw nga wéev loolu du problème moom boo liiree. du la ne Nabou montre les messages du la ko wax. di la ne Nabou écoute Kali ne montre pas s'il te dina la wax loolu na sama cinquante mille ñëw. allez liiral na ñëpp àtte liiral. du la ne na montre montre les montre les SMS du la ko wax sama cinquante mille na gaaw nag ma ne waneel rek yow kay liiral ba pare xaaral ma tëj sama micro nga liir. yàlla bu ma am defet. déggoo ma ne da koy am parce que nag perte fii perte la sekk kenn bëggu ko fu mu toll ni ñoom sori nga leen ñu ngi kottu tuuti si lu ñu jot a nekk nga wane loolu suñu jot a nekk si guddi si la ñuy quitté ñibbi. modératrice bi la du moom. ah ne montre pas la lay wax yow modé mo xool bi. Eh. modératrice bi gis nga ko nii. live bi neex na une heure vingt trois. waaw ah, kon baax na ne ko waaw bu neexutoon nit ñi duñ toog fii di seetaan ñëpp xam nañ ne ñu ngi kaf ñu ngi reetaan ñu ngi dindi stress et puis mu ngi noonu loolu moom. bu doon toog nabu nabu xaru xaru bari na façon mais façon xaru bi kenn du ko xaru. nabu xaru ah. bari na façon lool mais lii amul ku koy xaroo xam naa ni am nga am nga am nga am nga kàttan am nga degré mais tamit perte fis perte la sec kenn bëggu ko ñoom jamono ji perte nañ la xaaral tuuti rek perte nañ la ñu ngi toog ak ku ñu toog waa léegi nabu bu wanee message bi te nabu ñëwut kii ñu jot a toog mën na leen tàccu ñibbi ñu doon célibataire une bonne fois ban góor bu dafay def loolu. am fu ñu dañuy tàccu dañuy toog di mënu amuñu fu ñu jëm di amuñu fuñ fu ñu jëm. ñan ñoo amul fu ñu jigéen ñi. amuñu fu ñu jëm. ah Nabou nag loolu nga yaakaar ne même boo amul foo jëm di nga am sa fulla aussi tamit ah. di nga am sa fulla munoo toog sa jëkkër mu nekk sa wet nga tegal ko fonde bi tegal ko caakiri bi tegal ko salade bi tegal ko dibi bi mu lekk nga jox ko jus ba une heure quatre heures du matin mu toog di dugg si ay live ali écho dama ni ngi lekk góor a ngi lekk ginaara nekk ay yàpp ay miche wi tout tëdd si wetu jabaram xaaju guddi di xalaat keneen ku nekk ci biti waaw loolu am mais loolu am mais loolu am na mais mais mais pétement pétement pétement mais pas bi flagrant délit mu la si bind message may woo mais attends man xam naa ne jabaram jabaram xam na ni waa ji mi ngi may woo xam na ne waa ji may topp xam na ni waa ji daf ma bëgg kali ah, góor du fen ah mais xëy na jabaram mën na ko yaakaar mais xëy na moom du wan loolu jabaram si kanamam ma ne xaaral gis nga ku nekk sa jëkkër plus de dix ans douze ans quinze ans boo toogee fu kenn nekkul xam nga ne sa borom kër mii wàcc na lu mu bëgg te ku ko ci bu max mu jël ndax wàcc na lu mu bëgg sa waay xool amul amul amul ay kii de ay règlement de ay xalaat nii de li abanoo ses wax rek affaire xol moom du yëfu xel en tant xel de vraiment je de li ma wax la rek moo tax du ma ko wane man moom wane ko ak dee laa yemale. non bul bul wane boo ko wane nag da ngay andi problème ko sincèrement parler te yow xam nga ni je t'aime bien boo ko wane problème ngay andi. yow doo am problème sax mais ñoom ñooy am problème ko te bëgguma ñu. ko nuwoo paako ñi paako ñi arrangé ko nu toogaat say. yow nag yow yaa war a bañ loolu nag di yëngal sayu jàmbur yow it bañal loolu tamit yow it nag. ah yow it jigéen nawle la nag bul yëngal sayu jàmbur yi xam nañ ne yaa mën yaa ëpp doole mais yërëm leen tuuti tamit xam nañ ne saa yoo soxlaa ñoom dañuy perte ñoom moom loolu leer na leen ñoom ñëpp ñoom nangul nañ la ko. yow yaa soxlawul rek dama ni non dama ni yow yaa soxlawul rek mais xam nga ni boo soxlaa ku yëg daanu loolu moom ñëpp nangul nañ la ko ah yow maire yi tamit yow dinañ fi gis benn boy bi nii ak ay maire ah yow tamit. du ah xam ne du combat na bu rek seen seen wàllu wéy na nag. du combat wax nga ñoom seen bopp buñ la nga toog nii xam nañ ne tey tey bu ngeen noon xeex rek ngeen doorante dënn ñoom dañuy wadd dënn kese nga door leen dënn rek ñu daanu. mu door leen épaule. épaule waxuma la épaule dënn rek teka cak ñu wadd doo leen mbëkk doo leen mbéj parce que ko si mbëkk am problème ko si mbéj am problème mais koo si door dënn dina daanu mais du gaañu. ah aduna yàllaa ko moom nag. xoolal ah, kii. tu as raison tu as raison. tu as raison ah oui ah daa bëri façon di yow dégg li xam nga xar yi dañuy am ay béjjén di mbëkke yow li nga yor moo raw bagul yaa rek. waaw koo mbëkk mu daanu demoon. naa bàyyi mu sedd vu que mbëkk mu daanu koo wàññeetu mu daanu. nabu mas nga wàññeet nit wàññeet <laughs> hey door la côté nii. wanget waaw. waaw de léeg-léeg ma ko waj de léeg-léeg ma dox sa kaw tànki ne la baal ma tayuma ko gisuma loolu. tey <laughs> aduna ah baax na maa ni ko wangetu ku ne moom du bañ de. Kali dama ne la bu la tollee foofu defal farata kon wax ji jeex. Ah, Nabu xam nga ne nag nag Kali pour mu def farata nag xam nga ne bu yéexee si yow la nag yow tamit Nabu ah nee naa la boo ma ne woon Kali demain matin viens jas ma départ si fajar bi ñëw du ma wut valise du wut dara parce que xam na bu ma ñëwee foofu di nga ma pareel yëpp ay yéreeg yëpp da ngay def say say say say say say shopping say yooyu waaw yow yow Nabou tamit kay damay ñaan yàlla rek sunu borom affaire yi ñaan buy ne amin rek dañuy jéem rek yàlla waxul kenn dara de fu ne ni mën na jékki-jékki rek affaire bi tombeek amin waaw billahi mais gars yi soxor yi xale yu góor yi. waaw. Euh, euh, di nga ma bàyyi ma tukki neex. waaye yow foo demut waaye yow lu tax duma la bàyyi nga tukki ah yow tamit mais sëy bu àndut ak euh, confiance sëy nekkatu fa da ngay dem fu la neex bul ma tàggu sax ah yow tamit. ah bon ah. du ma la tàggu. non looy dox di ma tàggu pour lan nga may tàggu. ok mais arrête pour lan nga may tàggu magum jëmm nga demal fu la neex. ah no tàggu foofu lan yooyu da lay tardeel da temps bi ngay jël di wooteeg yooyu di tàggoog yooyu non bul tàggu demal fu la neex. léegi li ma la wax yow foo loger xam nga ko yow am nga macha allah hôtel bu la neex boo wàccee si àdduna bëgg nga wàcc hôtel boobu da nga wàcc hôtel bu la neex. Ah, te xam naa responsable. c'est-à-dire. mais c'est-à-dire que foo mënti tukki si àdduna sama xel dal na. foo waati si ma takkoon mais yow nag Nabou nag xam nga tamit tamit tamit tamit tamit yow yàlla ubbil na la ba pare. te gis nga tey jii yonent yàlla Muhammad yàlla dafa ubbiloon soxnaam su baax soosu. ba mu ubbilee soxnaam su baax soosu soxnaam su baax foofu moo ko defaral lépp. tey yow ji yàlla ubbil na la yaakaar nga ni dinaa la jël naan ñëwal Fuuta wala ñëwal Dalifort yow yaay bañ loolu yaay ne ma mekkali sama immeuble bi sama mais Nabou wan ma ta chambre d'abord montre-moi montre-moi montre-moi non mais je veux pas montrer ça les gens vont voir non mais y a pas de gens tu le fais pour moi non là on n'est pas seul on est mille cent personnes bah y a pas de souci mais de toute façon yow sa bopp xam nga ni soxla woo dem fenn tu as tout chez toi du question dama bëgg lu yomb comprends bien soo ma takkee da ngay sëy si. ba mais day dagan. damay day tax ma gën joxe respect. sa téléphone bu sonewee sama biir kër. ma la ma ne la décroche pas sa téléphone. man xam naa sa tempérament danga ma naan mais arrête je vais décrocher. non non non non non non non non non non bu ma xamee ni bu ma décroché y aura problème pour la may décroché. pour quelle raison lu may dox di décroché. ki ngay décrocher lu mu la mën jox xaalis lay doon wala ki lay décrocher lu mu la am naa kaa mais yooyu duma yàqal sama ménage aussi. man est-ce que xam nga man lan laa gis nii mag yow bu ñu sëyoon. waaw wallaahi di ma rey ci kër gi da nga may dóor ba ma dee. jamais yow ku lay gis di la dóor bàkkaar la. la ilaha illallah buy dee di dem safara. parce que su ma nee Kali prends tes bagages et le camp chez moi. ma ne ma ne quoi je vais pas sortir chez toi. kan mooy dugg àjjana. di nangu dem safara danga koy rey rek mu dee foofu nga dee ajana mais na bu arrêtel toi aussi arrêtel ah woy bi waa yàgg nga ko dégg li naan lu rey sa foo gis lu ñuul da ngay daw dama sama nopp yi da koo miis mais nag ñëpp yemuñu ñëpp yemuñu nabu nabu tey jii macha allah yow sa bopp xam nga ni ajana nga nga ñëw jékki ne ma prends bagage ma dem fan safara déedéet danga may rey foofu lay des. bu jaree jooy nga jooy noppi. Kali c'est un ami on est en train de discuter on rigole y a pas le feu là vous êtes là vous exciter daf laa bëgg lii daf laa bëgg am ay xel yu mais c'est oh. normal. les attends c'est normal parce que déggoo li ma la wax c'est normal laisse-les ñi comprendre ñu ngi reetaan ñu ngi xam ne on est dans le sens de Kaf tamit mais les les les nga bàyyi leen tamit a pas de souci. qui me regarde et tout. mais nga bloqué leen rek nga bañ. nañ leen may li ñu bëgg lii problème yow da nga gaaw a tàng bëgguma ngay tàng toi aussi. mais attends dëkk boo xam ne ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp excité. mais c' est normal mais c' est normal c' est c' est c' est nabu c' bu doon fii benn ñuul ñaaw laa fi doon waxal kenn du kenn du sentir dara. mais fu mu ne nii ñu ngi naan oh waroon naa nekk à la place de Californie. c' est ça c' seen ñaamu bët la man nangul naa leen ko man y' a pas de souci man je suis content nañu wax lu la neex seen ñaamu bët la t'inquiète pas. je comprends bien soo ma takkee on va rester à la maison. et je on va rester chez moi. Mm-hmm. et les factures qui va payer. ah waaw xam nga àdduna yàlla ko moom. <laughs> non attends attends attends attends attends attends attends tu m'as posé une question tu me laisses répondre quand même. non mais attends quand tu me dis àdduna yàlla ko moom ça veut dire que vas-y c'est toi. mais mais mais mënoo mënoo mënoo fël gémmiñu walis kat bi te xamoo lu muy walis. yaa ngi yaa ngi yaa ngi fal gémiñu Samba xamoo Samba lan lay wolis il m'a une question il faut me rester d'abord que je réponds bu ma tontoo après nga mën a kii pour les factures bu yàlla ubbee sama wërsëg mu yaatu doo fay facture doo fay impôt say lépp maa ko yor mais bu yàlla defee yow nga sut nga def ko tamit xaraamul yàqul dara day wane ne mbëggeel bi nga am ci man mais le problème en est que Kali man du ko def. déedéet loolu dara nekk si. mbëggeel moo bëri doole ñëwee ci kër gi. duma ma jënd du jënd courant du ma jënd dara day lëndëm boo bëggee lekk tamit doo lekk dara. tax parce que sama janq bi moom. du jox si la ñuy commandé wala restaurant yi. dem dem ay trois plats la ñuy mais naabu naabu sa bi la yàlla may kon xanaa danga koy gas rek après suul. sa wërsëg bi yàlla may c'est pour nga dund si aussi. li ma la li ma bëgg comprendre mooy. moi je t'aime bien tey boo ma bëggoon takk aussi je serais je dirais pas non. Ah. mais à la maison ya a pas de clim y a pas ginaar y a pas viande y a rien voilà soo ñëwee ya indaale sa bouteille ndox ak say fruits ñu waxtaan nga naan sa ndox lekk sa fruit ba mu jeex mu gunge la nga ñibbi. waa naa bu yow da nga wax sànq bu ma demee ba tàkk la yóbbu guddee ñibbi yooyu amul foofu waa na ñëw phase de doxaan phase de kali boo ma tàkkoon la léegi bu ma la la. bu yàlla dogalee sama wërsëg ubbeeku yow xam nga ni bu ma la mënoon jëlee lil àjjana ñëw tegal ko sax dama koy def yow xam nga ni sa frigo tous les jours attends attends je termine s'il te plaît sa frigo tous les jours mu fees dell ak yàpp ak ginaax dinaa rey sama bopp daal di koy def yow sa bopp xam nga ni bu ma mënoon jëli Senelec ñëw installé ko sa biir kër dama koy def mais bu yàlla dogalee sama loxo jotul ginnaaw yow mën nga def yooyu le temps yàlla di ñëw adduna yàlla bul gis ne que damay profité déedéet mbëggeel bi la. non non non mais exactement exactement exactement. Mhm. Euh, mon chéri euh, Lam Toro que sama kër euh, maanaam lekk bi dañ ko programmer déjà donc dañuy lekk dañ ñu koy commander bañ na man du togg ci kër gi comprend nga dañuy commander lu ñuy lekk benn plat pour Malick benn bi pour Awa benn bi pour man sama wàccee ma lekk ko beneen bi ci topp mooy. Euh, <clears throat> man je dors avec mon fils tous les soirs donc tey par exemple boo ma takkoon doo mën a fanaan fii parce que y a pas une chambre pour toi comprendre nga donc euh, aye bi moom xam naa moom peut-être euh, boo amee xaalis rek nga jël benn suite Radisson wala teeru bi ñu dem ñu ma aye sama aye foofu sama ñaari fan su jeexim ñibbiwaat mais kër gi moom sin sama tour la nekk te man maay fay lépp moom honnêtement duma ko man moom duma la duma du ñu mën a aye fii dara du fi mën a am daal Ah, olof Ndiaye dafa wax maye bu njëkk bi moom prix bi ci gën a moins cher dix million la man moom sama maye bu njëkk ñëpp xam nañ prix bi lu ci gën a yem dix million la parce que dix million yi soo ma joxee maye bu njëkk un million laa ci génnee parce que man ñi ñi ñuy loué bâche xam nañ ma parce que seen client laa bokk naa ak seen meilleur client ñiy loué bâche traiteur bi bokk naa tamit ci meilleur client am ndaxte man raar na gis tey jigéen boo xam ne li muy mariage ci at bi dafa bëri parce que man ci ci ci ci at ci 2024 bi rek marié naa deux fois kon xam nga loolu client ba mel ni man traiteur dañ koy bëgg c'est surtout dama am public damay publicité damay live xale yi am adresse yaay ma comprendre donc man je suis un bon client pour les traiteur ak pour ñiy bâche te man 9000 1 million yi mën naa cee am traiteur <clears throat> am ci bâche xam nga am ci photographe ñoom mag vision am ci lépp ci 1 million yi te du ma coûté dara léegi 9 millions yi dama koy investir sama liggéey moo tax ñi naan na bu moom day day business ci sëy bi man sëy bi balaa dara di xew damay investir bu pare dix millions yi ma jël ci 1 million xew maire yi moom sama bàjjen ñoom ñoom daanaka mis nañ ma léegi vingt mille laa leen jox ku nekk rek maire yi présentable toog def yëre def joyeux anniversaire mariage bi gars yi ñu bongo maan ma baatare leen ci 1 million yi ba tey 9 million yi ma doog ci samay liggéey waaw bu sëy bi demee ñetti weer bu tasee amul problème investir naa jot naa am lu ma lu ma lu ma yóbbu lu ma yóbbu ngéwél noonu lay demee te man un an maximum maximum lañ mën a sëy un an maximum un an maximum lañ mën a sëy maximum maximum un an lañ mën a sëy man sama sama sama sama sama sama kii samay protocole d'accord demul deux ans te bu dee da nga bëgg ñu am doom day fekk man ma xaymat sa alal ñu xaymat ko mu am ci niveau bu mu tool bu ko defee bés boo demee ba nekkatoo fi xale bi dina am même bu dee benn immeuble wala ñaar boo xam ne da koy mën a doon noonu lay deme mais bu ma leeree ni que amoo looy bàyyi say amoo doom. Ah, mën naa ah, di ko am doom. mais mais mais Cheikh yi bu baax. mais Olof Ndiaye dafa am lu mu wax lu bëri. waaw. nee na def loo man wax loo man boo tëddee ne law. de. Olof Ndiaye mu daw ba ngay ami tànk. léegi loolu la la ah! ko yow tamit. non déggoo ma la wax. jàllal saaku yàmb si caaya. bu yàlla defoon ma nekk milliardaire lii nga wax ni yëpp dama la koy quadruple dama la ko sax defal double ni triple quadruple non mais mais dama ni dama ni yow jax nga cinquante cinq milliards hmm. bu am nga parce que doomu aadama lépp loo am defal ko sa jabar mérité na de plus mais yi nga si dugal tuuti moom a xaw a jaaxal sëy bi un an lay def loolu problème la de un wa tey jii un an lay def booboo ma si gën a tiital bu doon da ne mën nañu sëy à vie jaral na ma ma ne la rey ji sama bopp pour ñëw teral la mais rey sama bopp ñëw sëy sëy bi un an nga nar ma génnee ak li ma investir yëpp loolu xaw ma fu ma ko nara mën a waxatee te dañit dañoo ne góor fu wax dëgg fa yàlla góor fu te jabar tamit wax dëgg fa yàlla ah dañ ko jël rek pour di si jaamu yàlla mais jabax boo xamante ni dalay laaj douze million di la laaj un contrat un an loolu yaakaar naa ni nekkatul jabax loolu foog naa ni nga toog si gel yi sax boo namee def naka sudul noonu ngay def naka sudul noonu moo gën a wóor ah àdduna yàlla ko moom yow rek dama la koy jégal boo gisee beneen CV nga daal di jël ah, ba oui faw ma daaw faw ma daaw yow yow say tàccu neexut ñu say tàccu say tàccu ñoo neexut a fec sincèrement parler say tàccu ah ba non parce que yow contrat bi nga def nii yàlla sax deful contrat boobu ak ay jaamam parce que yàlla dafa ne jaamam pour nga dugg àjjana ëllëg da may jaamu tegul da ngay def nii da ngay def nii da ngay def nii condition yu bëri yooyu yàlla tegu ko nit mais yow sa condition bi gis naa ni dafa métti. yow 10 millions 10 millions mooy bu njëkk moo pour nga jënd dibitëri la loolu du dara si tu as les moyens. jigéen loo ko ah. defaral jaar na ko. sincèrement ah. parler 10 millions du xaalis. sincèrement parler. dix millions jëndul oto bu baax sincèrement parler mais tamit boo bëggee ne sëy bi contrat un an la loolu moo ma posé problème sincèrement parler bëgg naa la trop mais li ma gën a daaw loo mooy contrat un an sëyu moom yàlla ma si yàlla muusal damay daw wax dëgg fa mënuma mënuma mënuma yàgg ah, loolu moom loolu moom moom sama gàcce lay doon yi parce que dañuy toog ñu ne way investir na xaalisam bi fii yëpp après kooku lekk na ko ba mu jeex mu ngi nii waaye dina te wax dëgg fa yàlla dix millions yooyu bu ma si demoon Fuuta mën naa si tabax Hercules takk si jabaru xaal pulaar bu ñuul koŋ boo xaa feet tamit bu njool waaw buy julli guddeeg bëccëg su ba ngoon bu jàng alxuraan. da waaw mais xam nga tamit da ngay xam ne tamit jigéen jigéen la te jabax den ci taamu jabar buy topp ndigalu borom këramam mais yow yaakaar naa ne buñ demee ba ci biir man may nare ami defet yow doo top sama ndigal. yow femme baatre nokk góor yow femme yooyu nga napp man je suis ah. vraiment désolé mais yow. yow non mais nag pourtant xale xoolal attends attends attends sincèrement nag sama CV dama koy retiré sincèrement parlé. attends yi la nit mënut def yow neexoo bañ. conditions yi benn ko. moo tax ah, waaw nangu kay. góor bu koy nangu ah, juddoo góor. mais nag mais nag mais kaay ma wax la de. un an yi dina ba ngay dee doo ko fàtte moom. Ah, un an yi moom ba ba ngay dee xam nga lu neex à lu neex à vie moo gën loo xam ne day neex benn un an neex benn un an at dafa gaaw ngay saraxolle saraxolle un an nga nar cinquante ans wala soixante ans loolu dara jaru ko. sincèrement papa misère pour la bu ñu tasee da ngay amaat ku ma ah, day dem bokkul. Ah, ok da ngay amaat xale bu ma gën a tooy xale bu ma gën a. tiin bokkul safin tiin bokkul safin. ah man moom boo bëggee dégg dëgg moom bu dee yow mës ngaa ban mariage laa am mës nga gis mariage bu def deux ans. ah moo tax nag yaakaaroon naa ne bu ma la jëlee maa ngi yow à lay doon nga ne bii mooy sama dernière mais fii ak un an ngay wax loolu moom vraiment je bien bëgg naa la trop xafi sant nga rafet nga baax nga mais sëy du rafet aussi ah sëy du xafi nga toog nga muñ ba yàlla def pique ak peel ah bah ma parler je suis Haalpulaar aussi ah Ah, euh, bah, oui. je, je, je, je, sais, mais man, je pense que tu as raison. je pense que je ne pas marier. je pense que je ne pourrais pas marier parce que deux ans, moi, c'est beaucoup pour moi. Un an avec Doyen. Imaginez un an, pendant un an, il est que chaque jour. M'a fait une semaine, d'aller gagner le coup. Chaque jour, m'a fait, chaque jour, m'a fait, chaque jour, m'a fait, à m'a fait à vie. Pour le monde, franchement. M'a fait, m'a fait, m'a fait, d'ailleurs, que, nga jëndon dongu tiga dege ci kër gi mais yow je sais très bien suppu kànje nga maafe nga daxin nga mbaxal nga kiir nga daldu nga kere nga baasi nga yow lépp nga yow fu la fële na bu yow fu la neexee fële yow yow ah. ah, rek boo bëggee daal un an ñu signé contrat ñu sëy waaw te man sëy moom boo man su ma la ñaanee baat ci njëkk mayoo ma ko ci tiktok xam naa ne man moom bu ma yàlla bu ma yàlla bu ma yàlla jayee bu ma sëy Californie ba ñëw ci bi taal TikTok bi naan Californie lay menacé ba Californie récupéré TikTok bi Paris <laughs> Pape Mbaye dina dina ci am wàllu wala nga gis nag nabu nag daj nga fii nga doon yekk sa jëkkër yu lu mel ni xeme Californie ma ko Cali may ma sama baat ok Cali naan la mayu ma la ku la takk ma topp ko yàlla ay Cali ah mu yàlla mu yàlla jëyee monsieur Californie mi ci TikTok bi. maa ngi doon pourtant nañ ko def foowukaay ba mu nekk dëgg de. mën nga jeewu rek man ma yow nag yow j'en suis sûr barki Seydina Mohamed su ma ñëwee ne la Kali may ma sama baat te defoo ma waxoo ma dangu naan Seynabou Kébé mayu ma la. mais loolu la yàlla santaane. loolu la yàlla santaane. jigéen du ñëw ñaan la baat. mais attends Nabou loolu la santaane. jigéen ñëw rek ne may ma baat nga may ko baat c'est comme ça ça comme ça. yàlla dafa ne bu la jigéen baat bañaal nga génn kër gi nga dem mu naan ndox. sama ex jëkkër bi nee na ma. ba ñaan baat kay tay de damay dem ma bàyyi la foofu nga xataraayu après ma ñëwaat. sama ex jëkkër bi nee na ma kon nii ngay def boo bëggee ñaan baat ngay xataraayu di feebar feebar lu di ñaan dépression <laughs> am dépression ci de naka tey caprice yooyu moom xam naa ni jeex na moom wax dëgg fa yàlla. mais nag ba nga tombeek ba ñu doo paaralul rek de. fu mu toll nii booy ah da nga amul sa morom rek de ah nabu nag yenn reewande yi daa am ñoo koy jaay de. parce que yàlla xoolal. ah non attends. Ah. mayu ma deux mois may topp mayu ma ma tàllaay bi naan sénégalais yi parce que Seydina Mohamed mairie paa bi di jooy bëggatuma de xiir <laughs> ma yàlla xiir ma say kali ba ma ñëw naan la kali je veux plus de la relation nga ne ma pourquoi ma ne la neex ma. pourtant pourtant yàlla yàlla yàlla yàlla mën na def nag ñu sëy à vie yàlla mën na lu ne gis nga àdduna bi rien n'est impossible à Dieu billahi lu ne lu ne yàlla mën na ko parce que yow subhanallah bu ma la naree dóor yàlla naa nga ma ne bu ma la naree dóor yàlla naa bàyyi àdduna dóor pour lan da ngaa dégg man da dégg man dama cataracte wala man dama apollo ba may jàkkaarloog yow aw ma lu ma def lu dul di la dox non jamais obligant jamais ça ça ça ça non du tout. naa la wax quelque chose du genre. va te faire foutre wala laisse-moi. mais mais si tu me dis va te faire foutre. va te faire foutre je peux soigner sur une autre manière sans te sans te sans te sans te mais attends mais y a d'autres manières quand même pour régler ce problème parce que waroo ma yàpp am na noo xamante ni bu ma la ko ñuusee doo am pour taxaw di ma ne va te faire foutre. bah oui hein attends Nabou aussi il faut respecter les hommes homme bu ma nee place am jabaram du jàkkaarloog moom di ko ne fat fex foutre boo gisee jigéen di ne góor fat fex foutre c'est parce que yambar la yambax yambax ci kaw lal bi yambax mais gox dëgg gox dëgg jabaram du jàkkaarloog moom ne ko fat fex foutre parce que xam na fu mu koy yóbbu ah arrête tamit arrête arrête dafa guddi. yaa ma wax la barki Seydina Mouhamed ci kase. fat fex foutre gi moom maanaam am na jigéen ñoo xam ne kali elles ont une impolitesse signalée dans le foyer je te jure ay xeex lay mujj xam nga gaañ ma ma gaañ la nit ñi di ñu dégg mais du du du kii man man je dois beaucoup travailler sur moi. nabu xoolal xoolal xoolal kii di di dinaan science na bu sol robu yow sa bët de sa bët ngay estimé nii solub robu nabu lu sa yoon ah. xoolal bu sol robu te taw te. te da ngaa ay robu yu ruus nag nabu nabu ñeme nga ruus. waaw Nabou siyaasal rek tey ma takkoon le nii rek Nabou première guddi nooy def Nabou looy looy looy sànce. <laughs> joogin. ah sañoo loolu nag. <laughs> ah. yow déggoo lu ma la wax. joogin lay sol teg la ñaari kawa. ngay ngay ngay përiyee ngay përiyee si diggalal bi naan tey la Nabou tey la Nabou tey la Nabou. tayela nabu tayela nabu tayela nabu. yaa ngi conseillé mariage bi te joxe goo càng li nga def nii bàkkaar la. tayela nabu tayela nabu tayela nabu. alors ah, Modou Fall jàpp la. déggoo li ma la dam la ni. bu yàlla dogaloon ñu sëy suñu première guddi nooy def dama wax sama wax dafa leer de. dama ne nooy def looy sol. joogin joogin. non man yow soxore woonoon sax yow. non sans force nag sincèrement parler. nabu yoo xam nga ni joogin si kaw laal jàpp la yow sa bopp xam nga loolu. moom ñeenti pull vert laay tëgle ñeenti baa ñeenti gin toog xam na ni loolu jàppale boo si biir woon boo si biir woon ba feebar sax doo sol loolu yow xam nga ni loolu nag ah du bokkul sa cumukaay nag yow it ah arrêté yow yow comprendre de man maa yo man avant barki yàlla man damay ragal nga nga ñu delloowaat la nga jëlaat sa bagage yi nank génn dem kat man je suis pas une femme bu neex dëkkal de bilaay ay sonal sa bopp. yow sa yow loo sol léegi nii nii rek ni nga toogee nii loo sol. joogin dara sol nii fi mu ne ah kañ la tisat bi nekkaat joogin xaw ma kañ la nekkaat joogin. parce que gis nga débat bi fi nga indi noonu dafa am ñu nekk ci commentaire yoo xam ne c'est des gamins. kon yow yaa leen di lijjanti noonu. mais si parce que xam ku lay seetaan tu vois que je veux dire. ah ba yàlla baax na waaw après ñu waxtaanee ko WhatsApp yàlla baax na yàlla mën na lu ne. ah moo moo waaw après après après tu vires loolu adduna yàlla ko moom. wax nga dëgg sax waaw wax nga dëgg non je comprends parce que am na ñoo xam ne fu mu ne rek mën na leen yóbbu ardo looy sol ak ah. looy kii je comprends daa am ñu feebar non je comprends daa am ñu feebar ñi feebar si dëkk bi ñoo bëri